ne mu jàllaleel na ko ci kër gi yépp di ñaan. di doore njaal gi. di doore njaal gi. ci ñaan ndax mooy li ci solo. waxtaan wi lu mu gudd gudd. waxtaan wi mu gudd gudd gudd. du weesu. du weesu. nee na loolu mooy li ci solo. donte nag. donte nag. am nañu yaakaar ju wér. am nañu yaakaar ju wér. ci jëmm jii fi bàyyi ko. ñu xamoon ko nag. ñu euh, xam taxawaayam. nee na xam nag as ci dundam. am yaakaar gu rëy ñi am yaakaar lañu yaakaar ñëpp. maase yaakaar ñun ñëpp. lay sunu bëgg-bëgg ñun ñëpp. mooy li am fii mu ne. waaye jullit. waaye jullit. ñaan la am. moo tax ñu doore wax jëpp ci ñaan. Eh, soxna si fi bàyyi ko nag. di sunu ndey. di sunu sëriñ. nee na miinuñu ko woon lool waaye dafa nekkoon. ku am yitte ci ñun. am yitte ju lool ci ñun. bi ñuy mujjee wax ci téléphone. sëriñ Abdou Mbacke bu Daarul Moxti. moo ñëw ba fii seetsi ko. woo ko téléphone. ni ko xaaral ma paas la soxna si. waaye waxtaan ak moom bés waaye nee na li waxtaan ak moom bis boobu. tooyal na sama na tooyal na ndax. ci fàttali. loolu dafa nekkoon. ci ay jamono. yu xawoon a xawoon a metti. xawoon a tiis. si waxtaan ak ñun. soxna si tuuru ci. mu am lu mu ñaanoon nag. ni ma bi sooba yàlla ñaan gi dana taam na. nee na moo tax ñu man a toog fii tey. kon. ku mel noonu. jàpp nañu ni. jàpp daf ñoo boole woon ci boppam. njaboo tamit. boole ñu ci bopp. kon bu yàlla defee li gën. jaadu na. nee day wax sax ni farata la. nu sol sunu dàll. ñëw ba fii ci kër gi. jaale sunu bopp. jaale sunu waa kër gi. jaale waa jaale àdduna bi yëpp. ci jëmb ji fi bàyyi ko. kon seen jiili. noo ngi lay ñaan. nga jottali sunu njaal. mu yegg ci kër gi ku fi teew ak ku fi teewul di ñaan yàlla sunu borom sarax bi yàlla na yàgg ci loxoom njaboot bi yàgg ci sunu loxo ñun ñëpp ñu yeex ko fayante di ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyit yàlla sunu borom gën leen dëgëral gën leen a jubóole gën a rafetal taxawaay gën a laabal xol yi ndax ku fi jóge rek lay sa mbébét boo fi wàcc mooy sa gannaaw yàlla sunu borom sàmmal la njaboot ñu fi bàyyi nee eh, yal na ko yàlla yombal kon kàddu gi du gudd kàddu njaal la kàddu bokk ak yéen tiis gi la noo ngi leen di gërëm di leen sant sëriñ nee di nuyu nag sëriñam. am naa am naa sax. ndax nee na am na kerse sax. fii mu toog toog fii mu toog. sama sëriñ toog nee sama sëriñ toog fii mu toog. nee di ziyaara kilifa gi sëriñ Fallou Soy. di ziyaara njaboot yi yëpp. nee di gën a feddali nag kóllëre. digganteem ak kër gi.